Ismaïla major Fall tey torox Antoine ñàkk jom torox ismail Ousmane Ismaïla Madior Fall torox Antoine ñàkk jom torox Moussa Fall général Moussa Fall torox na Abdou Karim Diop torox na mboolem juge boo xam ne bii da ngaa taxawoon ngir jéem a àtteel ñàkkal Ousmane Sonko am nga gàcce tey torox nga gàcce gii leen dal gàcce ga dal mbaam biiral gàcce ga rey mbaam biiralu ñay gàcce garay mbaam biiralu ñay suubug ndabin soxalu leen yéen ñii yéen waa yéen ñii yow Abdou Karim Diop yow euh, procureur yéen procureur yi nga xam ne da ngeen a contre Ousmane Sonko am gàcceeg saayir da ngeen am gàcceeg baatin yàlla day leen duma adduna dina leen duma àllaaxira yéen ñëpp laa wax Moussa Fall Moussa Fallo général Moussa Fall mi nga xam ne moo nekk Touba di lëmbe yaakaar ne moo ci ne te futi te futi à jamais Moussa Fall, tu foutu à jamais. Ousmane, euh, euh il est foutu à jamais. Antoine il est foutu à jamais. Euh, euh, procureur, comme adresse Abdou Karim Diop, il est foutu à jamais. Bassirou il est foutu à jamais. ñooñu a nga ne Diouf avocat Diouf mon c'est un comédien comédien moom gëmu ko moom lii muy wax ni gëmu ko xaalis rek la bëgg xaalis rek a ko jongati fi mu ne xaalis boo xam ne bi lewut ñu ko di ko lekk di ko jox sa njaboot ñu di ko lekk yàlla nañ ci musal yàlla nañ ci yàlla musal asanallahu minha di xaalis bu lewut di ko lekk di ko jox sa njaboot ñi di ko lekk nga di leen ci dundale nga defee ne loolu moos dafa nga ne loolu moos yàlla ànd na ci wallahi yàlla dana la toroxal ala Elhadji Diouf yàlla dana la toroxal digg bëccëg ñëpp teg seen i bët wallahi azim yàlla dina la toroxal ñëpp teg ci seen i bët billaahi dara dara dara dara du ko dindi yéen ñi nga xam ne euh, euh, comment dire ministre de de de ministre des affaires étrangères ak ministre de l' intérieur amu leen fulla amu leen fayda Macky Sall moo leen di jàpp di leen manipuler di leen xëcc droit di leen xëcc gauche lu ko neex mu mo sant len ko lu ko neex mu def loolu ngeen di ko def am len man vous n'avez pas de vergogne ay vergogne amu len ko vous vous la vous la vous le vous la justice de Macky Sall vous n'avez pas de vergogne yéen amu len ay vergogne vous n'avez pas de vergogne jarul leen a xam jarul leen a xalaat yéen waaye Sénégal da ngeen a bëgg yàq société waaye am ay intègre ñi fi ñoo xam ne ñu xam seen bopp ñu bëgg seenum réew ñu fonk seenum réew ñu fonk seenum société ñi ngi fi duñu nangu mukk jalgati boobu ñu di ci dugg kenn du leen ci dugal ndax ñoom xam nañu ne am nañ fiy doom seeni doom a nga fi te danañ fi am yu sët te sët yooya ñu dégg la seen maam doon def yéen ñi fi nekk di jalgati kenn ku nekk ci yéen bu soobee yàlla dina dégg dina dina dina dégg gàcce gi mu def fi ci ci Sénégal ci Sénégal Afrique danañ ko dégg xoolal Ousmane Camara moo nekkoon ministère de l' enfant de l' enseignement supérieur moom moom juge la woon Ousmane Camara bu Diourbel E intègre la dégg nga maam euh, euh, ki mbay Kéba mbay dégg ngeen ko fuñu waxe fuñu waxe justice mbay waxe justice mbay ay ay domam di fier ci lolu ay sotam di fier ci lolu yeen ñi fi doxal ngeen ni mel bu ndax le Sénégal doit changer le Sénégal doit changer le régime, le régime corrompu, le régime sach, le régime nafiq, le régime fenkat, le régime euh, le régime lek alali jàmbur lolou ci la ñu dëkk ci mo mo fi moo fi régime bu bon mo fi nek régime bo xamné bi bii képp ku ànd ak ku ànd ak ñoom yaay ku baax képp ko ànd ak ñom amoo lu baax régime bo xamné bi bii ñu fi lu moy sàcc alalu askan wi di na di di di naan askan di duma jam ñi di japp di tëj

billahi li ñu yéene Macky Sall du jàll Macky Sall toogaat ci kaw réew mii wala Macky Sall di giidewaat réew mii kooku jeex na fàtt na yàlla dindi na ko barki Muhammad Rasulullah kenn mun ta tee mu am kenn mun ta tee mu jiiteem réew kenn mun ta tee mu kenn mun ta tax mu jiite réew mi ak lu ngeen mën a seeni wér na parce que da ngeen a lekk riba bépp sëriñ boo xam ne dafay lekk riba ci biiram lu mu ñaan yàlla yàlla du ko nangu te yéen sëriñ si ko si ko cadre di ko ñaanal riba rek ngeen di dunde te riba moom du fanaan ci biir borom di ñaan yàlla naan allahuma yàlla di ko nangu boo ko nee allah boo na ko yaa rabbi allahuma mu ne la laa la laa labayka du ma la wuyu man yàlla duma la wuyu du ma la wuyu kon nag képp kuy lekk riba yaakaar ne sa ñaan dana mat dana dana sot parce que gëmu leen yàlla gëmu leen yoon bu ngeen gëmeen yàlla gëmu yoon da ngeen fi bàyyi lu leen fi seen maam yi bàyyee pouvoir bi leen seen seen maam bàyyee muy pouvoiru yàlla boo xam ne bii yowmal xiyaam la jeex seeni doom da ko donnante seeni set di ko donnante ba yowmal xiyaam boobu pouvoir lu ko gën a foor boobu po boobu lu ko gën amul ci kaw suuf ngeen na ko fi ñukk di ànd ak Macky Sall mu di leen jox ay mallette yu xaalis ngeen di lekk mu di leen korompi di leen di leen di leen wax loo lu dul dëgg di leen fenloo ay kilifa yu toll ni yéen mu di leen fenloo ngeen naan ko yaa fi gën yaa fi baax yaay waaja yow yow yow yow yow la nu xam yow yaay sunu yaakaar ñàkk ngeen fulla ñàkk ngeen fayda moo tax ngeen teg ngeen ngeen ne Macky Sall moom i baax moom baax ku baax la Macky Sall fu mu baaxee koo xam ne da ak dóor ak tëj la fi nekke nga moo fi baax économique bi daanu na dégg nga maam ñi war a ñi war a ñi war a ñi war a am xéewal amuñu xéewal ñi war a liggéey liggéeyuñu xale yaa ngi dee ci géej gi dégg nga maam kenn munu si jëmuñu ci dara ñi fi deewoon ba fii mu ne ci ci événement yi ba fii mu ne mos na taxaw jël micro taxaw maa ne maa ngi jaale seen i kilifa maa ngi jaale seen seen famille wala mu taxaw ne sa wax dëgg yàlla naqal to drapeau bi bi ñu dee vingt cinq vingt vingt sept personnes yooyu bi ñu dee soixante-dix personnes bi ñu dee dañu moom dafa waroon a wàccee drapeau bi la waroon a wàccee waaye defu ko moo tax nga xam gëmul Sénégal xam nga du mu gëm baayam muy Macron Macron mooy baayam mooy ndeyam mooy nijaayam waaye il va finir mal avec Macron bi jaayi Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam Macron na yàlla yàlla rëbb na ko Macron yàlla rëbb na ko yonent bi rëbb na ko te loolu lu wér la te képp ko ànd ak moom yàlla rëbb na la yàlla rëbb na yàlla rëbb na la yonent bi rëbb na la malaayika yi rëbb nañ la suuf rëbb na la asamaan rëbb na la garab yi rëbb nañ la njaraaw yi rëbb nañ la képp ko ànd ak Macron ngir toroxal Sénégal yàlla dina la toroxal yàlla dina leen toroxal yéen ñëpp والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته